ñu fas yéene jokkoo ak Alassane Ba mi fare foofee mu jukki lu ci lu gën a yaay ñu ngi lay ziar bu ko defee xibaar bi doon loolu kon xalifu Léona Niassène bi ñu woo ca police ñu bàyyi la nga yaatal. waaw comme euh, ni ko waxee rek euh, noonu la ñu ngi fi euh, en face police centrale commissariat central kon bu Kaolack gannaaw julli aljuma bi tey bi nag kii di xalifa général bu Léona Niassène di Cheikh Tidiane Ibra Cheikh Tidiane Khalifa Niass kon moom. la ñu euh, convoqué fii nga xamante ni moo di euh, police jamono ji nag ñenn ci taalibe yi ñu ngi fii taxaw euh, ci buntu police bi jàkkaarloog buntu commissariat bi waaye nag jamono ji moom xalif ba mu nga ci biir ñor nañu nag julli aljuma ki nga xamante ni nag moom moo am tey ji foofu ca juma bu lew nañu seen moom moo waral li ni mel waaye nag ñu ngi ci jamono ji di leen toppal xibaar bi rek ba xam wànnentu fan lay mujjee ki gëtëm ak sa dëgg-dëgg lu tax rek euh, ñu taamu ki nga xamante ni moo di xalif euh, bu lew nañu seen bi daal di koy euh, convoqué ci mbir mi ni mel ba Pa Maguette jamono ji may wax na mi maa seen yeneen taalibe di fexe ku nekk di ñëw. ñu nekk ci yore seen i kurus waaxu si xam naa rek biet ci kanam tuuti moom mbooloo mi dana gën a takku mais daal nañ jàpp ni xalif lew nañu seen lañ convoqué ci police njort nañ nag pli aljuma bi tey foofu ca lew na. moom moo ko waral ci kanam tuuti nañ ci ñëwaat. ci hmm. lu gën a yaatu Pape Maguette. jërëjëf Al Hassane Ba bu ko defee kon mi ngi noonu xalif général bu Léona Niassène ñu woo ko ca takk dere euh, foofu ci police waaye Al Hassane wax ni ñu mën a njott li tax ñu woo ko du leen lu dul jullit ajuma gi bu ko defee kon fukki simili ak juróom-ñaar euh, toftalu ci juróomi waxtu ci areelu fa Touba xal wajëm gi bu sa jàpp ndaama Touba. bul fàtte abonné. bul fàtte abonné. bul.